Optima ñepp ci gis seen bop xam nga jamono ngi bëgg soppeeku té dara lu ko nag lu kat mi nga xam mo yoron kër gi du man dal tok na lu ma laaj rek ma wax ko ko. li ma waxon ma def yépp def na ko man xawma sax lan moy problème bi je ne comprends pas. mais li nga wara wax nga waxul kër dañ koy sot Sherif nan lay nekké fi yenen boy yi nekk fi tak jabar individu fi pédicure manicure kër duñ ko mëna a mais da ngay wax deug yéen ñaar ñaan yi a ngi may bëgg a fàttali Chérif yéen ñaar waane ngeen trop c'est quoi problème Bamba nga may fété gis nga ñaan ñëlé ñaan ñi gis nga ko njool lu mu xam lay wër fi taane lu mu la xamal dina la ko tafal ci koñ bi ba mu taf tafar ku njool ki beneen booy bu gàtt bi tam def vous rien la borom rasay ba yow dama bay ñi ma xam lañ dëkk ak ñom yàgg ak ñom